ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي أنت زوجتي بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين nu ngi sant sunu borom subhanahu wa taala bi mu ñu defalaatee tawfiq ba ñu dellu siwaat ci suñu dars bi di wax ci buntu bu am solo boo xam ni buntu bu ñu soxla la soxla woo la muy silsila boo xam ne ñu ngi koy def ci alxayaatu zawjiya assaida silsilatu alxayaati zawjiya assaida muy ay bind yoo xam ne dañ koy def ci waxtaanee naka lees mën a def ba taxawal dund goo xam ni ci diggante ñaari way dencante yi di sëy dund gu dal lay doon gu neex lay doon gu méngoo ngërëmal sunu boroom waaye ak bëgg-bëgg bakkani doomu aadama te la nga xam ni mooy la baax ci moom bindab tey ci silsilatul xayaatu zawjiyatu saida noo ngi koy def ci laxat li ñuy tuddee al xitba xitba mooy laxat laxat ci wolof boo demee ci yeneen yi làkk ak ku nekk na nga koy waxee laxat mooy ku góor ci jóg am benn jigéen boo xam ne xeemeem na ko bëgg koo jël soxna mu jëm pour def ay démarches ak ay jokkoo yu am ci digganteeg moom ngir mu man koo gaaral boppam ndax dinañ mën a ànd ci ko bu dee ci ku jigéen ci labat mooy ku góor ci gis la war a ñëw ci yow pour waxtaan ak yow wala yow nga gis koo xam ne yaa ko bëggal sa bopp te sañ koo gaaral sa bopp comme nim la ñëwee ci biir bind bi tey fege ci sunna labat nag borom xam-xam yi dañuy wax ni du sart ci wérub sëy du sart ci wérub sëy loolu mooy lan mooy bu fekkonte ni waa ji dafa gis ndaw si tey mu bëgg ko tey tey tey ñu waxtaan tey jéggoo tey mu takk ko tey xam nga labat amul foofu moom foofu moom labat amul moom yëpp yi sos na tey tey tey donc xam naa jigéen ñi duñ faral di nangu loolu lu dul ko yàkkamtu lool waaye su boobaa sëy ba day wér parce que labat du sart ci sëy waaye nag même bu ci nekkul sart it nag bokk na ci yi ca gën a baax ndax dana tax nga miinanteeg ki ngay bëgganteel dana tax ngeen xamante dana tax ngeen weccante ay baat te soo weccanteeg ay baat rek di nga xam ba xam li ngeen mën a jëm wala déet labat borom bi junj na ko ci alquran wala junaha alaykum audu billahi min alshaitan irajim bismillahi rahmani rahim wala junaha alaykum fima arradtum bihi min xitbati nnisai aw aknantum fi anfusikum علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم سورة البقرة آية 235 sunu borom mu ni du aay ci junj gi ngeen di junj wala gaaral gi ngeen di gaaral soxna yi seeni bëgg-bëgg ci soi sakk leen fii nag mi ngi doon wax ci jigéen ju nekk ci idda foofu la doon wax waaye day yóbbaale jigéen ju nekk ci ndax labat labat la ci gàttal loolu la leeral ci aaya jooju war ni dara newu ci laaju naax mooy dara newu ci ngeen def lan mooy objectif bi tax ñu yoonal labat bokk na seen mooy sariya ci boppam dafa may principe yu muy doxee maanaam tegewul ci ay làmbaat waaye borom daf ko organiser ba bëgg lépp looy dugg rek mu tëralal la benn programme boo xam ne mën nga caa sukkandiku ndax jàpp naa ni waa àddina lépp lu ñuy dugg dañ koy étudier def ay calcul def ay xool ba mën a am ndam ca lool ki nga xam ne mooy ku góor ki jub di labat yi wala ku jigéen ci toog ñu di ko labat si wala moom ku jigéen ci jub di labatal boppam ñoom ñett ñëpp kenn ku ci nekk am na ay yoon yuñ la jaarloo wala ay principe yuñ la dëgg dëggloo yoo xam ne soo ko wàccut man ngaa tànn sa bàyyi doom man ngaa tànn sa yaayi doom fexeel ba nag góor goo bëggut sa doom mel ni bul nangu mu nekk sa borom kër góor goo bëggul sa doom mel ni bul nangu borom kër mu mel noonu loolu la jigéen joo bëggul sa doom mel ni bul takk soxna su ni mel ni jigéen a gën a garaaw nag maanaam li doom li je- yaay di mën a def jeexintal ci doom genn wàll ga la góor mën a am ci doom c'est-à-dire que góor gi ak jigéen gi bu ñu daje woon maanaam li doom ji mën a muñal baay du ko muñal yaay ndax man jigéen mën naa am doom fekk li ñu jël ci baayam sax bëri moo demee ak nuroo waale ak yooyu yooyu nga ci jël te waaye jay ji ko sax mën naa bañ a jël ci moom dara waaye jigéen mu feeñ ak mu bañ a feeñ ñu jullee ko tisbaar mbaa ñu jullee ko timis wax ci kaw wax ci suuf rek day am waaye faaw mu jël ci yaayam ba dara su ko defee kenn ku ci nekk dafa am loo bëgg jàpp naa ni mara naan rek taxula naan waaye am na loo jublu ci naan kon bëgg tey taxulaa tàbbi ci tey waaye am na loo jublu ci tey bi yooyu yëpp dana ko waral kenn ku ci nekk ñu am dund goo xamante ne xayaatun zawjiyatun saida tomb yi may bëgg a wax bëgg naa ko cee leeral su fekkee waxtu yu may nañu bi ma leeralee lan mooy labat mooy nga jóg gis ab jigéen bëgg ko jéego ya ngay def wala jéego ya nga war a def ak jokkoo yi ngay jokkoog ndaw si ak jokkoog ay way juróom loole lépp la ñuy tuddee labat ak diir ba muy am ak jëf jaag wax ku jigéen ci biir ak su gisee ku góor mu bëgg ko l'islam may na ko loolu démarche ya muy def labat lay tudd mooy labatal boppam wala gaaral boog boppam koy la way jur woo xam ne dafa gis ku góor gaaral ko kooku gaaral lay tudd kon jéego ya ku góor kay def ca doom ja wala kañ ko gaaral te loolu am na cosaan ci lislaam labat lay tudd ku jugoon tey bëgg a labat jigéen ci kan ngay dem ci ndaw si ci baay ja ci yaay ja ci ndijaay ja lan la lislaam yoon la ñan ñooy ñoo xam ni góor gi bu doon labat mënu leen a labat jigéen bi bu doon gaaral boppam mënu leen a gaaral boppam parce que daganul ci ñoom ñu tëj yan barab la dagan ku jigéen ci xool ko ci góor gi ak lan la mën a xool ci ku góor lan la ku jigéen ci mën a xool parce que xool ci nit ci la ku nekk xool sa morom ba xam ne la nga bëgg a magate wala déet yan relation nag mooy yu lislaam daganal mu xew ci seen diggante lan mooy loo xam ne bu xewee ci seen diggante may nañ leen ko parce que dañuy labatante waaye lii kat bu xewee lislaam moom da koy xaraam kon ginnaaw bu ñu xamee lan mooy labat ak ñi ko xeet yi wuutee nun koy tuddee waaye jëf moom jenn ji la cosaan day ci sunna mooy boo gisee ku jigéen nga bëgg ko cosaan laa wax ci sunna boo gisee ku jigéen nga bëgg ko ci wàllu yoon ngay dem wàllu yu mooy kilifaam lu tax néew ma baayam parce que mën naa baayam mën naa faatu wala nekkul kilifaam ndax baayam su nekkee yéefar dootul nekk kilifaam baayam su su su fekkente ni nu mu tuddatiwul su fekkente ni dundut du nekk kilifaam kon wàllu yoon la mooy kilifaam te bàyyi moo ci jiitu bu randoo am na ko ci topp bu randoo am na ko ci topp xam nga ni ko lislaam jàngale kon góor ji gis ku jigéen mu bëgg ko au lieu que mu dem ca ndaw sa ni ko dama laa bëgg wala gaaral ko boppam te kilifaam la war a dem kilifa ga mën nga ko jaare ci yaay mën nga ko jaare ci bàyyi l'essentiel na dem ci kilifaam rek loolu mooy cosaan te moo nekkoon doxalinu salaf wuuteeg nun li ñuy def donc li ñuy def nag du bàkkaar loolu nañ ci bàyyi xel da dul yoon wa maanaam gis jigéen ñi demal sa moom bopp ci moom direct loolu du yoon wa waaye nag ku ko def defoo bàkkaar tamit léen dañ ci bàyyi xel ñu bari dañoo foog ni boo ko defee rek comme l'islam lee la wax nañ ko jaar da ngaa def bàkkaar tamit déet amul bàkkaar dañ ne la kat lu woon nii nee la waaye mbirum bàkkaar amul ko yonent bi day sallallahu alayhi wa sallam ci xadis ak urwa nee na bi yonent bi bëggee Aïcha sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa dem ca Aboubacar ni ko man de sa doom ji bëgg naa ko gis nga de sa doom ji bëgg naa ko mu ne ko yow ay sama frère dama laa mën a may sama doom mu ne ko sa frère laa ci diine yàlla ji ak ci téeréem bi waaye nag bu dee mbirum tey gone gi dagan na ci man hadis ba mu ngi sahih Bukhari ak yeneen tegtal yu bari bañ a guddal mooy tax man di ci doyloo ci boobu di war ni kon booy labat da ngay dem ca kilifa ndaw su fekkee ndaw si nag dafa mës a sëy wala borom këram faatu muy ñaari bokk sëy sax wala borom këram faatu ñaari yooyu bu mu ci mën ci doon mën ngaa dem ca ndaw sa direct mën ngaa dem ca ndaw sa direct yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu bëggee ummu salama bi abu salama faatoo dafa yebal benn saxaaba ni ko demal leen ummu salama dama koo bëgg a denc soxna kon daa dem ca moom direct ñi ngeen ñaari ni mu wute mais dafa dem ci kilifa ak ndaw si bi ndaw si am na kilifa de ndax xam ngeen bu may jotee ci nga xam ne am na kilifa ummu salama mayul boppam ndaw si ni ko man day mag laa mu ni ko maa la mag mu ne ko dama am ay doom njaboot gi jaaxal na ma te xam nga boo téyee yóbbaale say doom mu ne ko njaboot gi maa leen jum samay doom la mu ne ko nag bi nga xam ne moom laa amulul pexe mooy dama fiir de lool tax nga xam ne moom loolu jàngoro jigéen ñëpp sax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko kon ma ñaanal la yàlla saafara la nekkete kon fiiraange day toll boo xam ne feebar la fiiraange bu yemee fa mu war a yem jigéen du ko defut sax baaxoo man fiiruma boo déggee jigéen ju koy wax maanaam dama loolu jigéen ñi nañ ko bàyyee wax loolu baaxul fiiruma mooy baaxoo maanaam fiir buñ ko définir la la mu war a am mooy jigéen dafa war a fiir waaye luy fiir fiir mooy ki nga nekkal nga bëgg ko ba gëme woo ko boo sañoon yow rek yaay nekk ak moom bu doon yow sañ sañ sañ donc dañ la wax ne la yaay àtte xalima ji bind say dogal moom yow bindalal sa bopp defe naa ko yàlla waxoon jigéen ji yàlla waxoon sa xalimaa ngi bindalal sa bopp moom yaakaar naa ni moom som point yi njëkk yi defe naa du mahmoud kalay bokk loolu mu xam naa ko waaye yàlla defeewu ko noonu subhanahu wa taala léegi nag bu yamee foofu moom mën naa nekk waaye nag da ngay gis koo xam ne mbir mi da koo jaral mu ñaan baat mbir mi da koo jaral muy dund diye sax waaye dina dem ci njabarkat ba te loolu nii li may wax ni mi ngi am mbir mi da koo jaral sum waaye muy def yëpp yoo xam da nga yaakaar léeg-léeg sax ñu jàpp seen ni ci ay sédaan da koo jàpp nañ ko fa ji fekk dara dalu boo waxtaanee ak moom ci ngay xam ne kii dara dalu ko fiiraange rek la parce que fiiraange am na dimension bu muy toll ak ndox lay nuroo kon yeneen sa salam ñaanal ko rek léegi nag bu fekkee dem nañ ba takk jot nag su boobaa kay takk kilifa lay doon waaye jigéen ji nga labat boppam mënul sa maye boppam mën naa dem nag ci kilifa ni ko maye ndax ki ko ki ma sa am borom kër moo ëpp kilif teeg ci boppam ci ki mus am borom kër bokk na ci façon yi labat yi nga gis sa doom gaaral ko waaju baax nga am sa mag bu jigéen wala sa rakk bu jigéen wala nga am sa mag bu góor wala sa rakk bu góor nga gaaral ko kenn koo jàpp ni kii mën naa dencanteeg moom baay ji mën naa gaaral doomam yaay ji mën naa gaaral doomam frère mën naa gaaral sëram sœur mën naa gaaral frère loolu lépp dagal na ci lislaam tey jii bu fekkoon da nga am sa benn frère nga gis benn sœur boo xam ne jàpp nga ni kii kat war naa nangal nga dem gaaral ko ko doxal ko ko loolu mën naa nekk su fekkoonte ni da ngaa gis benn frère boo xamante ni bu baax la fekk yaa ngi am sa benn sœur nga dem gaaral ko ko façon bu yooyu yëpp dagan na bu ngeen fàttali ko ci jamono ju yàgg ja yonent yàlla boobu di Muusa xam ngeen ni kam fekke woon ñi naan Suhayb la ñeen du moom ala kulli xaal daf koo gaaraloon boppam inni uridu an unkixaka ixda bnataya haatayn ala an ta'jurani samaniya xijaj فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك فتجدني إن شاء الله من الصالحين سورة القصص آية بنت bam dikkee dani ko man de dama bëgg nga liggéeyal ma huit ans boo ko matee dix baax na ngir mu nekk sabab ma may la kenn ci sama ñaari doom yii kon kenn googu bari na lool huit ans kon moom boo ko waxee góor yi tey yii moom yàpp naa ni kaay liggéeyal ma un an pour ma doog lay may jabar moom xalaatul ko kii nag moom juróom-ñetti at lañ ko wax xar mu def ko fukk dix ans liggéey ñu may ko jabar waaye jar na ko nag ndax doomi waaju baax la te jigéen ju baax la salafu saalix it noonu lañ doon dundee ci buntu gaaral keroog bi xab sa borom këram faatoo muy xunay ibni xusafat sahmi Omar da doon wëri ci saxaaba yi gaaral na ko Aboubacar gaaral na ko Ousmane kenn ku ci nekk mu ne la xanaa xemmi moom ma may la xab ba léegi ci buntu gaaral dagal na jigéen mu dem gaaral boppam góor gu baax boobu nag léeg-léeg jigéen ñi dañ koy faral di complexe def ngir yëpp yi may bëgg a wax mii xel mu naan la waaw su ma ko waxee muñ ma bëgguma la nag ah yàlla moo taxoon ngay jóg bu yàlla bu la ko waxee nga xam ne loolu la yàlla dogal mi ngi xel mi ngi naan mbaa duñ dem ba ci biir mu ne eh ma kontaan yow yaa ma gaaraloon sa bopp yaa ma bëggoon yaa ma toppoon loolu bu dee góor ki ngay topp góor gu baax la góor gu baax du wax loolu bu fekkee yaakaar nga mu waxal loolu rek teel la bàyyi teel la bàyyi parce que góor góor gu baax du ko wax mi ngi xel naan ah mbaa duñu dem ba ci biir mu ne ma maa crête naan kii moom xëy na moom ni ma bëgg façon yooyu yëpp seytaane moo koy def ci xel waaye déglul xadis ak anas bi anas ibni malik dafa toog di jàngale ba mu yàgg mu ni yonent bi daa toog di jàngale sallallahu alayhi wa sallam di jàngal sax mu yàgg benn jigéen ñëw ba tiim ko ni ko may naa la sama bopp xam nga foofu moom kenn du ko gaaral naa la may naa la parce que loolu dagan na fi ne yonent bi sax loolu nag ci yonent bi rek la dagan na jëmmi may naa la sama bopp maanaam ñëw fi ne bam ne may naa la sama bopp bu ko yonent bi ne woon waaw rek mooy jabar bi te saasa amul sax ay nañ séddale guróog yooyu déedéet amul foofu mu ne ko yonent bi gaaral naa la sama bopp ndaw si ni wuyoo comme ni ko wolof yi waxee wóoy waa saw ata fuñ jëm xam nga léegi da ngay gis nit def loo xamante ni dafa gàccewu maanaam ci yow dafa gàccewu nga jàpp ne àddina bi tukki na maanaam ci sa wóoy fu ñu jëm ji gàcce fu ñu koy waxee maanaam moom dafa jàpp ne loolu jigéen waru koo def mu ni jigéen ji moo ñàkk kersa dëgg dëgg dëgg loolu mu koy wax ci digg nit ñi anas ibni malik ni ko moo la gën fuuf nag yow nga xam ko bala nga cay wax dara ndax moom yonent bi la xemam sallallahu alayhi wa sallam gaaral ko boppam bala ngaa wax dara yégal ndaw saa la gën yow yonent bi siggi xool ko ba sippili ko daal di sëggaat sëggaat boobu nag mooy xëy na xemme mu ko pour takk soxna kon loolu benn firndee ngoog bu ko fàtte jàpp ko buy wan ni kon jigéen ji ak góor gi ku nekk xool morom ma ba gis te moom lu mu ko bëggee baax na ci lool xadis boobu Buxaari solo na ko Nasaa'i ak Ibnu Maaja moo tax imaamul Buxaari boo demee ci saxiixam am na benn bunt nga ko tuddee baabu ardi almar'ati nafsaha ala rajuli saalih bunt bi day wane ni jigéen ji mën naa xool góor gu baax mu gaaral ko boppam pour na ko takk soxna comme ni nga xamante ni jigéen da koy def góor te loolu mooy li gën a siiw imam ibni hajar dani fiihi jawaazu ardi almar'ati nafsaha ala rajul bunt bi xadis bi day wane ni dagan na jigéen gaaral boppam góor xamal ko xemem teefam gum am ca moom wa an la rababata alayha fi dalik waru ci am benn complexe te du ci am benn yeddaani mu ne jigéen ji mën naa gaaral boppam góor gum gis bëgg ko comme ni may nañ ko góor mu def loolu waaye nee na amul luñ ciy rut amul luñ ciy complexe waaye nag foofu ma wax ni façon bi ñu xewal tey moo xam ci seen xeeti xara xarala yu yu yu doy waar yi moo xam ci média yi moo xam ci rajo yi moo xam ci journal yi moo xam internet moo xam Skype moo xam seen xeeti yëf yëfaan yooyu nga xam ni mi ngi noonu yooye moom jàpp naa ni jigéen du am fulla du du yëglee boppam foofu man maa ngi nii sama numéro téléphone mi ngi nii jigéen laa ju mel nangam nang wala sax nga def photo photo foofu damaa bëgg jëkkër loola moom jàpp naa ni jigéen du am fulla ci boppam du doxalee noonu façon boobu moom taxut nuy wax li ñu wax mooy xool nga ba gis góor gi bëgg nga ko natt nga diineem doy na la natt ngay jikkoom doy na la amaan na moom sax ni nga ko gisee giseewu la noonu nga dem gaaral ko sa bopp ah man li damaa am xeneen ci ci yow bëggoon nga nekk sama borom kër am na yeneen façon it nag kii moom mën naa dem waxal ko boppam comme ni ndaw si def am na koo xam ni sërëm moo ko koy def kenn ci soxna yonent bi mosoon naa wax yonent bi ni ko yow kéema laa may sama rak yonent bi ni ko tuuba waay nit mënoo koo boole moo ko rakkam takk di moom ndaw si xamul moo tax mu wax loolu kii moom mën naa woote téléphone wax ko kee lettre lay bind wala message donte ñaar yooyu mujj benn wóoru ci nag parce que mën naa rox mbaa mu siiw sa secret feeñ kee moom da koy yóbbante façon yi yëpp dama koy tudd ngir ngeen xam ne dagan na ndax mbir mi lislaam da koo yombal da koo yaatal lépp ngir bëgg nit ki di jël ay suwaay boppam ci lépp li nga xam suñu borom may na ko kon jaadu na nit ki mu gaaral boppam moom ku jigéen ci ci façon yooyu ma wax wala nit ki mu gaaral doomam wala sëram wala frère am ila axirihi loolu mën naa nekk bokk na ci tomb yi ñu war a leeral mooy ñan ñooy ñoo xam ni daganul nga labat leen ñan ñoo xam ni daganuñ ñu labat la ñooñu nag ñu bari lañ comme waxtu gudd dama koy tënk rek tënk bi mooy xam na ñu ñu tudde al muharramatu ala tabid ñoo xam ni abadan ba yowmal qiyam duñ la mën a takk boo dee jigéen doo leen mën a takk boo dee góor ki nga bokkal ndey ak baay ki nga bokkal benn ndey ki nga bokkal benn baay ñii mënoo leen a takk ba faw ak ñeneen ñu mel ni ñoom am na ñeneen ñu mel ni moom am na ñoo xamante ni du- duñ la mën a takk waaye ñàkk laa mën a takk daa am fu mu yem ki takk sa mag wala sa rak du la mën a takk waaye nekkul ba faw ndax bu wàccoon sa mag mën na laa takk donte fii Sénégal nag moom loolu mu xewu fi façon boobu moom daa am yoo xam ne ñun suñu suñu réew mi xaw ma dañ koo seexlu xaw ma dañ koo ragal bu faatu woon it mën nga koo takk comme ni yéen si maye woon ñaari doomam kan ci saxaaba yi Osmaan mënoo boole nit ak bàjjenam nit ak bàjjenam mënoo leen a boole ci sëy kon am na ñoo xam dañ lay araam waaye araam bi daa am fu mu yem am na ñu ñuy tudde muharramat min ar-radaa li ajli ar-radaa mooy yow kat bi nga juddoo sa yaay nàmpal wala amul woon toow wala dafa faatu woon tante diw moo la nàmpal wala bàjjen diw ila axirihi kooka la nàmpal doomam même bu daganoon ci yow nàmp gi nga nàmpal moom moo tax dootul dagan ci misaal am na ci kër gi benn jigéen bu fi nekk boo xamante ni bu fekkoon nàmpalu la doomam dina la mën a takk léegi mës na laa nàmpal yow léegi kooka bu ngeen màggoon doomam bu góor bëgg la yow ku jigéen ci yéen ñaar bu ngeen mën a ànd sëy lu tax ndax ki nga nàmpandool dañ koy compte compte frère waaye nag loolu yow rek la engagé ci famille bi ci misaal am nga yeneen sœur yoo xam ni sœur yooyee su leen doomu kii bëggoon mën a nay takk yow la dul mën a takk parce que yow la ndaw si nàmpal kon yaag ku góor ki yéen a bokk yaay loolu leer am nañu muharramaat li ajalil musaahara gorowante tey boo gisoon benn jigéen nii ngay dama koo bëgg mën nga kaa takk soo ne woon fomm naa ko ko yaayam laa bëgg mën nga takk yaayam ñaari jigéen a ngi nii kii yaay la kii doom la te yow da ngaa bëgg a takk xam nga foofu mën ngaa takk ku la neex boo xasee takk doom ji tayee yaay ji jeex na boo xasee takk yaay ji tayee doom ji jeex na waaye foofu am na sew sew sew bu ndaw bu ci am boo xasee takk yaay ji sëy ngaab moom ak sëyoog moom a ci yem doom ji moom tayee mën a too koo takk faaw boo xësee takk doom ji te jotaguleen a sëy nag nga wàcc ko mën ngaa takk yaay sew-sew boobu tamit ñu bàyyi ko ci kon ci gàttal daal am na ci ñoo xam ni sa sa cousin sa cousine comme comme ni ngeen koy làkkee noonu ak yooyu yëpp mën nañ laa takk mën nga leen takk képp koo xamante ni amut benn gàllankoor bu dox sa digganteeg mu takk la kooka mën na laa takk ab yéefar du takkub julit comme niñ ko xewalee léegi tubaab jóge fële wala nangam nangam tuubut ñoo dama lay takk ilaa axiri yooyu déedéet yéefar du takk julit julit moo mën a julit bu góor a mën a dem takk yéefar te loolu kuñ ko wax te ngay borom xel war ngaa xam xekkam yu bari yi ci nekk bokk na ci mooy autorité bi góor gi am ci say jigéen du ko am kon góor gi mën naa xëcc jigéen ji ci génn ko ci lislaam te jigéen ji pour mu xëcc ko góor dugal ko ci lislaam jafe na jigéen ji nga xamante ni day eddawu te fekk faasoo ko waral dagadul nga labat ko lu dul ay junj ay junj jigéen bu borom këram faasoo ñaata diir lay toog pour eddawu ah ah quatre mois dix jours ci biir quatre mois dix jours yi daganul góor di ñëw di ko labat si waaye dagan na nag mu def li wolof yi naan dàq ginaar waxaale ay soxla xam ngeen loolu dàq sa ginaar waxaale sa soxla mooy junj yàlla mu ni mooy ay ñoo jàng sang wala gina aleykum fi ma arrastum bihi min xitbati nisaai aw asnantum yàlla mu ni junj bi ngay junj wala denc gi nga koy denc ci sa xol ci ni ah diw de bu su muuroo ba summi bëgg naa koo takk wala nga am junj yoo junj borom xam-xam yi ñii nag nee nañ junj yi léeg-léeg mën naa fës ñii ni léeg-léeg du fës fii boo di keesul aada yi bu dee ca paayi doon te yooyu daa fës nag da ngay gis ku ni kuy kap nii rek di kap rek daa sama bolot baa ngi noonu nag ci manto bi am na koo xam daan ah sama maraaki yaa ngi ci buntu bi de daal dem yoonam boobu baat dong lay wax nag xam nga boobu moom daanaka ku xamul moo xamul waaye ki xam-xam na loolu am na lu muy junj am na koo xamante ni moom dana ah ci aji dem ji de yàlla na ko yàlla yërëm waaye nag boo summee koo moom na nga teey bu baax a baax a baax a baax dinañ la wutal borom kër bu baax daal di noppi tuddoo sa bopp tuddoo kenn foofu nag damay wax ni ci accept l'islam bañ a junj junj bu tës fës moo gën a sérieux moo gën a yenu maana ndax ci borom këram dem xamoo fan la ko toll am na loo xam ni boo ko waxee ñàkk na la ñàkk nga ko am na ci ay jigéenam ñoo xam ni boo leen junjee junj yu mel nii mu leer rek ñooñu moom tayee moom même buñ la bëggoon sax fiñ toll moo tax kee moom léeg day jé- jékki-jékki mu jaar fa jox la goro sub suukar léeg-léeg mu jaar fa am na mu def yooyu yëpp te loolu dagan na xam ngeen fekk lam ci jublu rek mooy miinal la boppam waaye waxut dara ba léegi lii nag dagan na ci lislaam waxuñu nag képp ku jub def loolu rek daa bëgg a takk déedéet fekk mën ngaa nit mën ngaa nekk sa wóolla rek mu paas ngay def loolu fekk jubluwoo sax loolu da nga koy dimbale ngir yàlla rek loolu tamit ñu bàyyi ci xel waaye kee moom lam denc aw askanandum fi am fusikum dagan na ci moom kon ci borom këram faatu kenn du ko labat ci biir dix quatre mois dix jours yi waaye nag mënees naa junj ay junj wala boog nga dem seeti xaritam bu ko jege boo xam ni jàpp nga ni kii moom ndaw si lu def lu lu mu yëgut nga wax ko ko ni ko bu ko wax ndaw si nag waaye daal bàyyil ma ko xel saa boo déggee muy wax nangam ak nangam xamal ni bëgg naa koo jël soxna loolu nag dara néew ci maanaam ñun ñoo am sénégalais yi aada yoo xam ne dañ koy garaawal fekk déedéet borom këram la amoon ba muy am borom kër bu góob ko parce que jabar jàmbur la borom këram faatu la day wuti keneen doon bu dul yow keneen lay doon nga bëgg ko loolu dara néew ci da di kay xool yoon wa nga koy jaaree moo gën a baax jigéen ji nga xam ne dañ koo fase fasem pay yi kenn du ko mën a labat kenn du ko labat doo junj doo wax say soxla fasem pay yi mooy mooy lan mooy am ñuy déggul wolof ay naa fase boo xam ne àggagul ci ñett sa jëkkër dalaa war a mën a fay bi mooy fasen fay bi maanaam borom kër gi fase na ko benn yoon wala fase na ko ñaari yoon xam nga ba léegi araam jeexagul ma nga ca këram di eddaw foofu moom dafa xaraam góor ñëw naan parce que ba léegi ki la fase nga nekk ci edda te fasen fay bi la ba léegi jabaram la saa bu ko soxlaa bu ñëwoon tey ñu waxtaan amul joxe guro amul joxe waat sax su boobaa daganul ngay wax dama laa bëgg daganul ngay jiñ muy fasem fay bi fase moo xam ne ñaar la wala benn la bu xësee mat ñett nag muy fasem ñett moom tayee boobu moom góor amatu fa jabar gis nga ki nga xamante nii borom këram dafa da koo fase fasem ñett fasem ñett kooka moom man ngaa ñëw nga gaaral ko fa moom parce que dootul nekkati soxnaam bu soobee yàlla sa mbokkum julit moo yëg ni kat ñi ngi bëgg diw sàngam nii daganul nga dem yow it di labat sa kaw labatu mbokkum julit yow ku jigéen ki nga xam ne da ngaa gis ni sa mbokkum julit mii daa bëgg diw ku góor ba bëgg ko gaaral boppam wala mu gaaral ko ko ba pare nga dem di ca dugg yow it déedéet labat ci sa kaw labatu mbokkum julit daf xaraam yéen sa sant xadisu abi hurayra ci buxaari muslim mu ne wala yaxtubu rajulu ala xitbati axiihi hatta yankiha aw yatruka du dagan nga labat ci sa kaw labatu mbokkum julit lu dul dafa bàyyi wala mu takk wala mu ne la demal wala ndaw suñu ko bëgguma yonent bi nee na dafa xaraam nga jaay ci sa kaw waxaale sa kaw waxaale mbokkum julit yaa ngi fekk kii waxaale pare bu nga ñëw ne ay non bàyyi boobu bi ma jaay la bii loolu dafa xaraam parce que loolu sax day jur ak noonoon bañan loolu ba léegi mi ngi ci Buxaari ak Muslim kon ci gàttal yooyu ay yëf yëfaan la yoo xamante ni mënoon naa gën a xóot ci leeral ñi nga xamante ni ñoom ñoo la mën a takk ak ñoo xam ni mënoo leen a takk loola nag yooyu ma ci junj rek doy na am na yeneen ñu des yoo xam ne ay détail la mi ngi aju ci nag nit ki bu fekkee xamul ni kii mën naa koo bëgg wala kii mën na maa takk soo ca tollee nga leerlu ko ba pare doog ca tànn kon ci gàttal gaaral yaa ngoog ak façon labatin yi nga xamante ni am na bokk na ci yi nga xam ni mat naa leeral mooy lan moo dagan ku góor ki xool ko ci ku jigéen ki lan moo dagan ku góor ki xool ko ci ku jigéen ki borom xam-xami lislaam yi dëppoo nañ ci ni yoonal nañ képp ku am kum bëgg mu xool ko mu xool ko loola am na cosaan ci lislaam ndax it xam marchandise da nga koy xool ba xam bëgg nga wala bëggoo laaj ay laaj léegi ba ci leen marti tekki xool kon bu dee nit la koo xam ne yaa ko bëgg islam may na la nga xool ko frontière yan la yéen a tënkoon léegi suñ ci nañ ko bu dee ku góor ki ma bëgg ku jigéen ci dagan na ku góor gi moom amul problème góor gi moom amul lu ñuy tënk naan fii la tàmbalee fee la yem góor moom xoolal ba doyal amul luñ koy frontière bu ñuy tënk jigéen moo am ay frontière ndax jigéen yaramam bokkul ak yaramu góor moo tax borom xam-xam lislaam yëpp dëppoo nañ ci xar kanam ak i loxo lii lii di feeñ muy xar kanam gi ak lii ci tàmbalee ci tukku jarab yi nii ba nii lii lang loola moom mënees na koo xool ci jigéen loolu kenn wuute wu walhamdulillah boobu amul wuute ci borom xam-xam waaye nag wuute gu méttee méttee métti moo am ci léegi nag bu loxo kanam jàllee ndax mënees naa xool lu ëpp loolaam biir kooku moom am nag juuyoo gu yaatu ci borom xam-xam yi juuyoo goo xam ni su ma la bëggoon a indi détails yi am rek defe naa suñu temps yëpp dana ci ñàkk waaye nag tënkal naa la ko tënk boo xam ne insha allah loolu lañ gis ni mooy li gën a dëgër benn bi benn saxaaba dafa ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ni ko man day damaa takk soxna ci waa lansaar mu ne ko gis nga ko mu ne ko déedéet gisaguma ko dañ ma ko gaar rek ma ne may leen ko mu ne ko déedéet demal nga xool ko ndax waa lansaar seen bët yi daa am lu ci ne am na benn riwaaye bu ni dañoo tuuti ay bët dañuy tuuti lañ war a ñenn am na ci giir yoo xam noonu lañ mel te loola am na ñoo xam bëgguñu ko te nit sañ naa ut ay soir lii laa bëgg bëgguma leen ndax loola it nag lu ci am solo la parce que koo xam ni moom nga fas yéenee nekkal kër ni mu xatee néeg ni mu xatee lal ni mu xatee xol ni mu xatee jàpp naa ni kii moom war nga koo waajal ba gis koo xam ni bëgg nga ko du ma wax sax bëgg ma ne nopp nga ko moom comme ni ma ko waxee woon daaw nga xam ni boo nee nopp sénégalais yi seen firi day rëcc dañu yaakaar da ngaa saaga maa nga wax lu bon fekk loolooy wolof bi di loolu mooy wolof bi xam ngeen nopp waxuma la nopp de nopp nopp xam ngeen xamu leen noop ah mooy lan macha allah loolu mooy nopp loolu mi ngi jóge ci nopp loolu njabarkat yee koy def nopp mooy nga def jigéen ji loo xam ni daf lay topp comme ni xaj di toppee borom boo nee balel mu bale sëggal mu sëgg demal mu dem dàqali ko ay way juróom saaga ay way juróom ngir yow loolu njabarkat yaa ngi koy def de bàyyi dem ci xel bi maanaam benn góor mën na laa bëgg nga ni ko bëgguma la rek mu dem ci njabarkat yi bu la yàlla dimbaliwut lool mu def la loo xam ni ni xaj yi toppee borom nga koy toppee te boo nee ko tëll fàdd du tee mu toppaat sa kaw gis nga xaj bi borom bu ko fàddoon sax mu toppaat ko après te xoola fàdd ni mu nekkee léegi nopp mi ngi jóge ci nopp maanaam nopp mooy dafay am ay yëpp yu tax nga xemem ko góor ci wala nga gis ko bëgg ko ba tax yow daanaka moom rek nga da ngaa yaakaar moom rek moo fi nekk ci góor loolu mooy nopp noot nag mooy loolu amut ñu fexe créer ko ci njattig njabar seytaane ba yëf yi sox wala ayasu billah moo tax léeg-léeg lu jaratee di nga gis nit mu toppee nit noo xam ne da ngay xam ni kii moom yaa quelque chose am na lu xew xadis ab jaabir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku labat ab jigéen soo ko mënee xool ba gis ca moom lu la xemmeem loo pour nga takk ko defal loola loolu abu daawud solo na ko ahmad ak xaakim xadis ab sahl ibni saadin moo nett li ba léegi nii yonente bi saa sallam ba léegi beneen riwaaya bu dul anas yonente bi saa sallam benn jigéen ñëw na ni ko may naa la sama bopp yow yonente bi yonente bi sig nii fixé ko la wax sawwaba fa fa ah sawwaba ilayhi nazar mooy def ko fixé xool ko ba gis ko ah ba sëppali ko daal di sëggaat kon gisul ci moom lu ko xemmem loo parce que tamit mën ngaa gis koo xamante ni xëy na mën na laa bëgg fekk bëggoo ko waaw foofu nag borom xam dañuy wax ne lii teggin la ci bu fekkee góor gi bëggul ko jigéen ci baatam bëgguma la moom loolu kenn du ko wax loolu moo xam nga ci aada kenn du ko wax waaye da ngay seet aw lay rek boo xam ne da ngay naxasaale rek génn ko ñaareel bi mooy su fekkee ku jigéen ci day kadaalika baatam bëgguma la moom nit bañ koo wax amma jigéen ji lan nga mën a xool ci moom borom xam-xam yi juuyoo gi tënk naa ko ci ñeenti yëpp yoo xam ni borom xam-xam yi nettali nañ ko ci téere xam-xam yi waaye tënk boobu ma tënkaat ko benn am na ci borom xam-xam yi ñu ni loxo ak xar kanam rek moom nga mën a xool loolu jumhurul ulama borom xam-xam yu bari ci ñoom loolu lañ wax mooy ngiram alxanafiya mooy ngiram malik mooy ngiram shafiiya te ab wax la buñ doxal ci xanaabila muy ngiram ahmad ibn hanbal ñu ni parce que xar kanam kat bu dee taar ngay wut wala leeraay wala lëndamaay wala nangam mën nga koo xamee ci xar kanam kon doy na boo gisee xar kanam ga doy na léegi loolu lañ mën a xool am na ñu wax loolu am na ñu ne déedéet li ëpp luy feeñ lu mel ni raqaba raqaba mooy lii baat ndox fii nii baat bi ñu ne mën nga koo xool am na ñu ni wal xadamay ni ak ndëggu tànk yi boo soloon ay sawat tay li nga sol tànk bi foofu ñu ne loolu mën nga koo xool te it ngiram xanaabila muy ngiram ahmad ibn hanbal ñoom loolu lañ gën a lëngal ndax dañ ne yonente bi saa sallam dañu xoolal lu la xemem loo jëme ci moom waaye kenn tënk ko comme loolu lañ la wax sa sœur yow li nga xool ci moom mën nga ko waxal sa sœur sol mbubb moo xam baat baa ngay feeñ dënd baa ngay feeñ loxo yaa ngay feeñ tànk baa ngay feeñ xam nga sœur noonu lay soloo ci sa kanam ñu ni amul problème ndaw si mën ngaa koo gis fekk mu mel noonu am nañu ni daal loo mën a xool lu dul ay awraam rek dagan na ci yow loolu ngir la muñ soxal jëlee ko imamul awzaa'i loo mën a xool dagan na lu dul awraam la am na meneen ngir moo xam moom ñoo gën a xaabaabal ñoom dañ ni moom amul lu muy tënk loo xool loo gis rek dagan na ci yow loolu nag moom naa ni ndax ñoom dañu yéen tamit undur ilayha xoolal xoolal rek la wax xoolal jeex na xoolal xoolal xoolal la amul ak tënk waaye bi ñu dajalee wax yooyu jàngat ko liñ ci gis ni mooy li gën a lëng mooy lii may bëgg a wax insha allah wuute wuñ ni xar kanam ak ay tenk moom dagan na loolu mooy waxatu may waxam waaye li gën a yenu maanaa mooy lépp loo xam ni dagan na ci sa sœur nga xool ko ca moom dagan na nga xool ko ci ci ngay labat wasala loolu laay gis ni mooy di gën a dëgër loolu nag waxuma ko man waaye xasba bi ñu dajalee waxi borom xam-xam yi loolu lañ gis ni mooy la gën a leer te am ay tegtal ndax yéen sasalam dañuy xoolal dëgg la loolu la wax am na ay riwaaye ci salafu saalix da ngay gis koo xam ne këm bëgg day yéeg ci kaw garab xam na benn saxaaba dafa yéeg ci kaw garab bàyyi ba ndaw si root ci teen ba mu di mu di ko xool fekk ndaw si gisu ko kenn ci taabiyoon yi seen ko di ko it bay jiw yow yow mag mu doy ni yow ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dem nangam nangam yow yaay def lii mu ni ko hee lii lan mu digal ñun dégg nga li mu ko wax lii lan mu digal mooy boo ko mënee xool te fekk gisu la sax mën nga koo xool ay boromi xam-xam yu bari ku mel ni imam ju mag te yàgg ibni Qudama ci téere bu ñu al Mughni ah ku mel ni imam ibn Hajar ci téere bu ñu Fathul Bari ku mel ni imam ibn Hazm ci téere bu ñu al Muhalla ak ñeneen ak ñeneen ci boromi xam-xam yu bari boo delloo ci seen téere masala nii nii lañ ko tënkee indi ci ay détails waaye ñun lii lañ gis mooy li ko gën a sa sœur nag li nga mën a gis ci moom bari na ndax jàpp naa ni bu soloon ak soulèvement soulèvement xam nga fii la yem bu seur bu soloon soulèvement fii la yem loolu nag ma tënk benn tënk tekkiwul da ngay ñëw ni ndaw si ma xool loolu moom déedéet kenn du ko wax moom kenn du ko wax léegi ndaw si mooy am xel xam ni l'islam may na ko lii misaal bi may joxe tey bu ndaw si muuru woon muuraay bu gàtt donte nag si seen dagal na nga xool boppam waaye bu ndaw si muurul muuraay bu gàtt donte loolu laa gën nag moo tax ma ni ma tudd ci muuraay gi man bu muur woon muuraay bu yam sol yére bu yam ah muurul comme ni muy muuroo buy génn sol yére yoo xamante ni ah mooy yére ba mu am ci biir këram mooy seen xeeti yére yu xew yi jigéen ñi sol ak nu ngeen ko mën a tuddee nag donte yeneen xew sax xewatul léegi léegi yeneen xew waaye daal yére yam sol rek moo xam ndoket laag donte lo- loolu xewu la am jigéen ñaa ngi koy sol ba léegi ah xewu ndoket laag xàppati laag tay baas laag yooyu yëpp ala kulli xaal ak yi xew yére yem sol daal ala kulli xaal nga jàkkaarloog moom gis ko loolu dana lemu kon damaa jàpp ni la gën a mucc ayib mooy bu jigéen gi xamee lii ku góor gi xam lii ku jigéen ki moom mooy yëg ni kat kii di ma labat bi kap ñu xawuñu daf maa bëgg a takk am na lu ko islam may ci man maa nga daan muuroo jilbaab mbaa ma ngay muuroo muuraay ku jot macha allah buy génn muuraay googu mën na ko wàññi bu ko neexee yére yoo xam ne bu ba yëg si fii mën nga bu ko bu ba yëg si wut wàññi dara wàññiwul dara parce que gisuñu benn tegtal boo xamee danañ xoolal lii bul xool lee waaye nag ku ne xam na ni ci naan mën ngaa xool lépp matière awaraan walay demee noonu loolu yow loo xam ne sa baay sax mayuñu ko mu xool la ko ca xam nga loolu kon kenn saxut di wax ak sa yaay kenn saxut loolu sant nangu ko mu maala ko xaal kon daal bépp sol gu yamamaay gu jigéen di sol ci biir këram te nga xamante ni lenn luy fësee awra néew ca sol googa ci labat bu ñëwoon tey yow ku jigéen ci yëgal ni l'islam may na ko lool du jaage ni moo naan la ma xool nangam nangam déedéet waaye loolu dagan defe naa som boobu moom leer na ci gàttal kon daal loolu mooy li gën a lëng su ko defee ndaw si mu xam ko ku góor ci xam ko ndaw si xam ko ku góor ci xam ko ndax kat ko dëgg yàlla ku góor moo gën a fës xam ku góor ci moo gën a yomb waaye ku jigéen ci am na loo xamante ni war nga daa mën a xam ci moom su ko defee xam ba xam ci nii la mel bu dee melokaanam am na koo xamante ni ku mel nii la bëgg te ku mel nee la bëgg ci ku kenn ku nekk ak suwaaya muy bëgg moo tax du ma ci tudd benn dama naan mel nii mel nee mel nee kenn ku nekk xam nga la nga bëgg ci góor ku nekk xam nga la nga bëgg ci jigéen su ko defee yan relation nag moo war a dox ci diggante ku góor ci ak ku jigéen ci bokk na ci mooy su fekkee góor gi ku jigéen ci da koo gaaral boppam wala ku jigéen ci gaaral boppam ku góor te fekk beneen faras bi bëggul mooy comme ku jigéen ci gis na ni kat góor gii ñëw ni ko dama laa bëgg moom bëgg ko su boobaa na fexe rafetal na muy delloo li wala bi naan lay ba génn wax wax bi rafet ah man de dama am ngant bu ma sañoon daal nga nangam nangam maanaam lë- lëndëmal ko rek su ko defee parce que loolu dafa métti nit bëgg la bëgg nga ne bëgg man loolu baaxul loolu moom baaxul moom wax dëgg yàlla waaw kon su boobaa fexeel daal noo ko naxasaale li wala na naxasaale ba génn ci waaw man de dama am benn ngant boo xam nangam nangam jarul na ngay wax lu amul nag nan daa am ko fi nekk ak damay nangam nangam ak yooyu comme ni ko kaay yi defee déedéet waxal li am rek dama am benn ngant bu la laajee ngant ba nag ah mën naa ba- ngaa bañ a leer ah su ma sañoon daal nga bàyyi na ndax ngant la boo xam ne sama vie privée bopp la daal nopp waaw ndax vie privée dama léegi yaa ngi wax dëgg de te yaa ngi jàll gis nga kon su ko defee nga gaaral ki nga gaaral bëggul na seet tontu wu rafet wuy seet du xol ndax nit mën nga gaa tontu loo xam ni léegi da nga ne ko baal ma ñaanal la keneen rek te wutal la nangam nangam wax ay wax yoo xamante ni mën naa dal xelam aywa bokk na ci yi ñuy séq mooy xool xoolaat mën naa nekk waxuñu la tey ñëw nga ci kër gi rek gis nga daw ci xool nga ko benn yoon kese kese kese ñu ne ah ah sawaay jeex na buntu bi tey lañ ko tëj woon lundi après jeex na déedéet mbir mi demeewul noonu mën ngaa ñëw nga xool ko fekk am na loo bëgg a seetlu seetlu woo ko ba tey benn yoon boobu takraar bi dëgg la bàyyil ga rek baaxut dund waaye nag takraar bi nag defaat ko loolu dara néew ci alal aqal benn yoon ba ñaari yoon alal aqal ba ñetti yoon lu mu gàtt gàtt gàtt gàtt nga xamante ni ndaw si gis na ko ci melokaan wu bokkut ak melokaan ba muy génnee aywa bokk na ci yi nga xamante ni séq nañ ko nag te mu xaraam mooy yi xew tey mooy nga jëndal ko portable jëndal benn sa bopp def ci piis bu doon jamono yële sigoo la bu dee yi expérito la waaw ngeen nekk ay waay nag ngeen nekk ay waayante di jokkoon loolu dafa xaram ci lislaam benn ñaar ñett nga woo benn ñaar ñett nga message ko message ante yi mel ni jëkkër ak jabar loolu dafa xaram déedéet loolu dagan nga xam ne ndaw si moom mënta toog journée la mu déggu la yow it mën a toog journée la mu déggoo ko am ko ëppal koo xamante ne mënta toog journée la mu mënta la gis moom xaw mu gis la ci bis kooku moom loolu dafa ëpp moom moo xam ci ku góor ci la moo xam ci ku jigéen ci la kaañ ànd fii kaañ dem fee loolu déet daganut de yooyu yëpp daganut amu leen fu ngeen ànd di jëm amu leen lu ngeen di wéet di ko waxtaanee la ca gën a yées nag gën caa bon ngeen di waxtaanee yoo xam ne jëkkër ak jabar ñoo ko waroon di waxtaanee waxuma sax ci mbirum tey yooyu waaye mu ngi yoo xamante ni wax dëgg yàlla bi waxtaan yu xóot la yooya moom déedéet dëgg la nag man ngeen a waxtaan ah ku jigéen ci am noonu moom day su ma sañoon su ma amoon borom kër nangam nangam di wax ay choix mooy wax ay choix am ngeen di jàpp te man de wax dëgg yàlla famille yi léeg-léeg nga dem ci kër mbaa yéen seen famille nangam nangam moom it ku góor ki mu wax ah waxtaan daal di juddu ah yow seen kër yi kana kana fa nekk mu ne man ak sama yaay sama papa kese kese kese ñoo ko def ak samay rak mbaa ñun kat ah ñun kër këru famille la de ma- maanaam la ñuy teg de na leer na waaw yooyu yëpp affaire yi leer waaw damay ragal bu fekkee ku mënta toggee mbada bu ñëwee day am problème waaw yooyu mu leer ah man kat damaa bëggoon ku ma luyeel benn appartement donc loolu sax du ma ci soñ waaye xam nga jigéen ñaa ngi koy wax moo tax ma wax ko léegi yu mel noonu man du ma sëy si ci kër gi man kat nangam nangam waxan ci ay wax ba mu leer ba mu leer ah man damay jàng kat na leer man samay parents bëgg ñoo bàyyi jàng léegi léegi nag loolu moom loo ci xam maanaam yi ngeen war a waxtaane te mu dagan ngeen waxtaane ba mu leer olof yi dañuy wax ni yéenu xët déen waxtaan xët déen daa bari xii xii de maanaam xët déen dafa bari coow lool bala ngeen a yéenu ngeen di waxtaane li ngeen di wax waaye bu ngeen xësee yéenoo ba rek coow lu bari lay tax lu ngeen waxati kenn dégg morom moo tax yu bari dañ koy waxtaane ca teel olof yi dañuy wax ni lu nuyo lu feeñ ci sëy nuyoo woon na ci ngor nañ koo fayu gis nga sooy waxtaan ak moom it na ngeen toog ci saal ba rakkam toog wala magam te nekk magum jëmm wala baayam bu leen wéet bu leen ànd jëm fenn tey kaañ dem tey di sa ndijaay kaañ am même bu dee sa ndijaay sax na ngeen ànd ak kenn waxuma laa da nga leen dëgg koy jël sa oto di ko yóbboo waxuma laa nga naan nañ daje ci añ ak yooyu déedéet yooyu moom ci lislaam moom déedéet moom kay ku nekk na gàdd sa cëkkal guy rek ba keroog borom bi soo tala dogal ngeen mën a ànd maa ku ne seeti morom beneen bi ci des mooy ndax dagan na jigéen ji toilette fekk ki koy labat mooy ñëw waaw waaw dagan na maanaam tey jigéen ji bu xamoon ni diw mii daf may labat mu wóor ni ñoom kabuñu fawuñu ñu ngi ci seen fulla ndax kafa ko moom baaxul léegi ñu ngi ci seen fulla waa ji ni ko tey de bëgg naa faa ñëw ci ngoon wala bëgg naa faa ànd ak sama papa wala sama benn bàjjen moo bëgg xamante yow wala nangam ndaw si dem fulla nu ñëw ko dara ne nee na dara newu am nay tegtal ci sunna wa illaa mu rafet rafetlu tee dagan ya dag- ya dagan nag laa waxuma yi nga xamante ni baaxul kon loolu dagan na te complète am bu rafet rafet mu daal di koy génne sol ko loolu dagan na ah ku góor gi kat day naaj moom doog a ñëw kat day góor ñi dañuy préparé ba jekk nag doog a ñëw moo tax l'islam bi wax dëgg yàlla euh, am na loo xamante ni tëju ko waxuñu la ngay sol ji génn waaye nag ki lay labat te fekk la sa biir kër nga sol loo xam ne lu jekk la ah loolu moom dara néew bu fekkee nit ki da lay labat kon ci xadiis ab subayata al aslami te loolu mi ngi ci buxaari yi nee na bi borom këram faatoo mu ni dafa fuddalu woon ba jekk defaru ba jekk nag soog di xaar am na beneen riwaaya sax dañuy ta- tajammalat lil xitaab dafa rafet rafetu ba jekk di xaar ñi ko doon labat ndax jamono jooju moom mi ngi mi ngi jaayu ñu ngi koy bëgg waaye mi ngi ko def bi iddaam jeexee rek ndax mënu ko def ci biir idda bi ndax dagan na ñu mayante ay kado waaw bu fekkee mel na nam war a mel mayante nañ lu dagan dem jaar fa mu war a jaar waaw te mayante ga nag mën naa teel ngir yàlla loolu mën naa nekk ndax nit boo ko bëggee ngir yàlla nga may ko ngir yàlla moom mën naa nekk waaye may ko ngir dama kaa bëgg a takk wala nangam nangam wala boog bu yëf ya sottee nga daal di mer ca may ga ah loolu moom du noonu moom xaalis la matériel la lu mu mën a doon mën naa nekk ci kaw bu tegee ci fa mu war a tege laa wax na du bunt buñ tijji waaye du bunt buñ tëj gis nga kon ci gis ni kii kat maa ngi koy bëgg man damaa yëkkati genre nangam def ko yéen tamit sa xaadu sa xaabu mayante yéen ngeen bëggante jàpp na ñaar ñi bëggante fas yéene def farata ñoo ci gën a yay kon daal mën nañu mayante mën nañu jëndalante même ku jigéen ci sax ku ci doon benn affaire jëndal ko koy bëgg dara ñëw islam bi tey fii ak moom mi ngi def la ko l'islam sant na yam na fa mu war a yam du wax lu mu war sa wax du dem fu mu war sa dem te it ku góor gi du ko dépassé moom it du ko dépassé te it may gi da koy xamal ni ko ah lii dem ngir yàlla léegi nag ki lay bëgg wala ki ngay bëgg xam nga soo ko mayee wala mu may la may day day tax nit ki nga am foo ko yegg loolu moom loolu moom yàlla def nit ñëpp ci bokk def koo moom nit ñëpp ci bokk def même bu dul mbirum sëy sax wala labat nit boo yëkkatoon benn affaire bu am solo rek may ko ko rek loolu da ngay am benn place ci xolam même bu fekkee affaire sëy sax nekkul seen diggante mbaa kenn di ko ci xalaat yàlla moo def nit boo ko yégee ba may ko dara rek loolu da nga koy fonkee kon nag ki nga xamee da- dafa dafa lay bëgg mu bëgg bëgg di gën a yokk mu mayee may la loola moom dara nañ kon defe naa waxtu dab nañu tënk bu gën a gàtt loolu daal lañ mënoon a tënk ci wàllu labat di ñaan suñu borom lépp loo xamante ni jub na ci borom bi lépp mu nekk luñ mën a jëriñoo lu ci dëng loola ci ñun ñi la ñu ngi koy jéggalu suñu borom wala ilmu inda allahi taala wa sallallahu sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain
alhamdulillah ñu sant mbokk yi waxtaan ay solo yi nga xamante ni moom la ñu wax ñaan borom bi subhanahu wa taala yokk ko taw yëpp yokk ko xam-xam yi borom subhanahu wa taala wër wërsëgal ñu ba ñu nekk tey te ñu ci wax ay njëriñ kon dañuy jàll ci ñaareelu étape bi wala question bi waaw ñu ñu lay laaj ñu ne est ce que dagal na ci islam nit ki waxtaan ak borom këram ba ñu dëppoo ci ne maanaam duñ am ay doom dañuy jële boo xamante ni ñoom ñoo ko defal ne ñu ñaar buñ tuddee ci lu jiitu loolu ñoom suñu am ay doom te loolu na dagal ndax dagan na maanaam nit ki waxtaan ak borom këram ñoom ñaar ñu dañ ko am doom maanaam loolu nag dañu ko ci benn jële boo xamante ni dañ ko weeroo peut être dinañ am doom
waaw ni dagan na wala ni daganut day du yomb li ko waral mooy lan mooy jubluwaay bi lan mooy jubluwaay bi parce que jubluwaay mën naa wuute ndax ndaw si mën naa yëg ne dafa feebar te wax dëgg yàlla jamono jii mu toll moom ragal na ni am doom mën na koo lor te mu wér loolu mën naa nekk illa bi ak yeneen yi nga xam ne islam mën na ko dagan léegi nag ndax yilla bi loolu lay doon wala déet yàllaa xam maa nag comme ci milieu scolaire lañu nekk xëy na peut-être mu nekk ba ma am bac wala ba ma am licence wala ba ma def sama formation ba yeggal wala yooyu ah ala kulli xaal mu bañoon am de mooy dëggal mu bañoon a am mooy li gën ndax benn jumtukaay yi ñuy jëfandikoo pour bañ a am doom baaxul ci santé loolu moom bu dee ñi jàng santé ñi ngi ci te xam li ñuy jàng lan la xam nañ li ma wax loolu baaxul ci santé muy benn ñaareel bi mooy jigéen carrière am dafa gàtt loolu jigéen dina ko bàyyi xel jigéen carrière am daa gàtt gën a gàttati nag jamono jii ñu toll loola soo ko sóoraalewut man ngaa dem ba toll fa nga bëgg a amee doom fekk sa carrière moom jeex na wala ma ngay waaj a jeex beneen bi ci des mooy borom bi subhanahu wa taala ku xereñ la ci ay def defam amaana ci mën naa bañ dara fekk loolaa gën ci moom amaana mu bëgg dara fekk loolaa bañ ci moom yàllaa xam moom xamul kon daal li gën a wóor mooy nit ki bu mu ko def lu dul illa bu sariya nangu moo tax mu di ko def te bu koy def it nag mu jog koog ay borom yi xam-xam ñoo xam ne mën nañ ko orienté ci defin yoo xam ne mën nga koo def te du lor sa santé wallahu alam
ñaareel laaj bi day mbirum laaj bi mooy boo xam ne day jël ay précautions maanaam ngir ay raisons médicales kon su koy permettre na ci nekk ci jàmm.
ah loolu daanaka moom tontu bee rek ñooy foofu moom damay wax ni doom yi ñuy jëfandikoo yooyu yëpp bañ am doom benn baaxul ci sant loolu moom benn nag laa benn amul ci benn bu baax alifun baawun taawun ba yaaw benn baaxul ci sant loolu moom su dee yi ñuy jëfandikoo baaxul benn boo ci jël nag am na effet secondaire yu muy def ci yow yoo xam ne laa yàqal pilule yaa piqûre ya yooyu waxumay waxam moom yooyu ñu naan doom wala yooyu moom moo gën a bon sax loolu ñi yëngu ci santé xam nañ loolu mu des nag li ci des li ci des mooy liñ tontoon ci tontu bu njëkk bi rek kenn ku ci nekk mu ragal yàlla ci buntu boobu te xam ni maanaam yi nga xam ne léeg-léeg dañ koy def ngant pour bañ a am doom yooyu nekkul ngant ñu xam ne l'islam lam santoon jigéen mooy toog ci këram comme nag yaa gin te loola nag wax dëgg yàlla nag ah bu la ko l'islam nangulee ci ay sarti du tee nag bul dikk di imposé waat yeneen i affaire nag moom da ngaa war a nag toog tey jur say nàmpal est ce que xam ngeen ni jurkat jurkat am na solo de te loolu nag benn jigéen ñi defatuñ ko bëggatuñ xoolal yent bi muy wax tazawwaju alwaluda alwadud jigéen ju mën a jur te nobe tazawwaju takk leen alwaduda ku nobe alwaluda ku mën a jur xam nga loolu moo lay wax ni kon mën a jur moom yéen fasam ne bari leen ay doom ndax damay puukare woo xeet yu ëllëg ku lëpp ay doom mu lëpp mu lëpp chance xëy na nag milieu yi ñuy dund moo xam ci njàngum école mi la moo xam université la moo xam ndakaaroo yi fi xew soo ko xoolee ba ci biir da ngay gis nit ki day éviter am doom yu bari am doom yu bari dara néew ci lu dul jàmm jàmm ku la ëppalee doom bu leen yaree ci diin da lay gën ci àddina gën la ci àllaaxira bu soobee yàlla wallahu alam
rek kii lay laaj mu ne fekkoon ci da ngaa bëggoon nit ki mu dem ba seen relation ak koo xamante ne daanaka maanaam mën na ko leen bàyyi ndax mbokk moom daf dafa nekkoon ci góorgóorlu woon waaye mu dem ba benn benn bi moom daal di bàyyi léegi mu ne kooku noonu nan lay def ci maanaam ci situation boobu.
ala kulli xaal koy àndal moom bu dee ku la bëgg ak koo bëggul la ku mu mën a doon bu jàddee da ngaa war a jéem loo mën pour gindi loolu moom moo xam seex ngeen labat moo xam seex leen mu des nag ki nga xam ne da nga koo bëgg ba sori ci moom ba mënu leen a bàyyante loolu wóolu toujours deel jël ay comme réservation ngeen koy wax deel réservé wu ndax saa boo xaabaabalee ci mbir rek bis bu ñàkk ko ñëwee nga am problème dañoo bëgg deel am réserve toujours deel ko waa kii bu deewoon fu ma jëm kii buñ ko mayoon keneen mayuñu ma ko fu ma jëm yooyu dee ko calcul di ko bàyyi xel waaye rek gëm ni rek kii moom dañ ma koy may di di di réveil teg rek kooku bis bu échec amee da ngay am problème ñi ko mën a def ñëpp dañu am problème kon bañ a yegg foofu mooy diggal waaye nag góor gi na fexe ba jigéen ji na fexe ba kum bëggul doomam mel ni bu mu jëkkër ji moom wasalaam
rek kii lay laaj est-ce que maanaam dalal na ay contact am ci biir ci biir tabax boobu.
contact comme waaw contact de bu dee contact li ngeen ci jublu mooy li ma wax mooy fexe xam ko mu xam la loolu mën naa nekk nga am numéro am mu am sa numéro te ngay woote tuuti te mënta ñàkk muy woote tuuti wax ci nag gàtt te leer nga coupé mu coupé te muy gëj waaw loola moom dara newu ci bu dee loolu lañ tuddee contact moom mën naa nekk bu dee foofu la yem wallahu aalam
mais ci biir laaj bi mu ne est-ce que labat ci boppam am na benn durée bu ñuy déterminer ne la war a yem.
alhamdulilah jazakumullahu xayran ki laaj laaj boobu jazakallahu xayran fàttali na ma tomb bu am solo ndax loolu waroon naa koo tudd ndax dafa am tomb yoo xam ne mënoo tudd lépp waaye am na yoo xamante ni ci point yi am solo yi ëpp a bàyyi la bokk muy boobu ndax am na diir bu mu war a yam déedéet waaye nag daa war a gàtt loolu moom borom xam-xam ni leeral nañu ban diir la war a am 3 mois 1 an 6 mois déedéet amul lenn teg benn texte bu ñëw te leer wane ne labat fii la guddaayam yam gàttaayam mu mën a nekk benn fan. waaw gàttaayam mën ngaa ñëw tey tey tey tey gis ndaw si tey tey tey mu bëgg la tey tey nga bëgg ko tey tey ñu may la ko tey tey waaw loolu dafa mënta ne ah mën na nekk non dama gis nii kii li fi mel ni ma wax dafa dafa kii maanaam da ngeen di yaakaar ni mënta nekk ahan kay mën naa nekk gisante tey tey bëggante tey tey xamante tey tey ñu may la ko tey waaw loolu mën naa nekk moom loolu moom aywa naam jeex ah Hmm? Hmm. waaw fu ñu ko wutalee foofa waaw bu fekkee dañ koy wutal nag na fekk mu xam ko avant na fekk mu gis ko na fekk mu bëgg yii daal bu ca dajee mën naa nekk moom waaw te loolu nag góor gu am fulla te man li muy def moo mën a def lii nag li nga nekk li nii waaw góor gu am fulla te man li muy def moo mën a def lu mel noonu waaye nag lu mën a nekk la waaye nag na ci yooyu ma wax daje loolu lu mën a nekk la loolu amul problème maanaam nekkut gàttaay bi dafa am limite waaye guddaay bi it nag amut limite waaye lu mu gën a gàtt moo gën lu mu gën a gàtt moo gën comme lan mbir yi mën naa dem ba trois mois loolu mu wax dëgg yàlla dara nii ba trois mois mën naa nekk donte nag trois mois sax bari na waaw waaye xaaral ba école tëjee ba ma def sama examen yi ba pare wala ba année scolaire bu déwén nag wala yooyu moom daanaka yooyu moom ay caaxaan la moom yooyu ngeen bàyyi ci xel yéen suma mbokk taalibe yi yi jàng tubaab wallahu a'lam
mais ci day laaj maanaam yan aas moom la ci jigéen bi amee.
ala kulli xaal laaj bi mu laaj ab somb la ci biir silsila bi kon mënuma koo leeralagum la ngay ndax yeggaguñ ko waaye daal ci gàttal daal jigéen gi xam ni séq ko moroomam kese waaye boroomam la ko séq ak yi nga ko ameel yàlla dala koy laaj ak yi nga ko ameel boo ko defee da ngay am tiyaaba soo ko deful da ngay am bàkkaar ak yi nga ko ameel soo ko respecté mën naa répercuté wu ci barkeel ak say doom ak yi nga ko ameel boo ko mën a répercuté wu ci yàqal say doom ndax boo ñu liggéey sa jëkkër yàq say doom kon jaar na nit ki xam ni war nga koo jéggal war nga koo fonk war nga koo liggéeyal war nga koo respecté buy wax ca kaw waxal ndànk ah bu toogee ca kaw toogal ca suuf mbaa mu jox la ndigal nga toog ca peggam ah bul wax di di di ko tàllawlu xam ngeen tàllawlu mooy nga taxaw fii sa bunt ko borom kër taxaw ca buntu mosquée te sa góor ñi nekk nga naan ko eh diw loolu bokkul ci teggin déedéet da ngay yónnee mbaa nga dem ba yegg waaye doo ko sàllawul bu ko defee daal boo mënee fexe ba sàlli ñareet nooy nepp yaru lool dégg ndigal am teggin ci ci sa borom kër xam ni sang la kilifa la su boobaa daal yégal ni àq ya moom la nga ca mën def nga ko wallahu alam ban yegg ci ak jàpp
mais ci day laaj ñu ne est-ce que xoole bi nga xamante ni may nañ ko ndax loolu day am ginnaaw li waajur yi nangoo wala boog avant après loolu avant loolu.
waaw foofu foofu la fa la muskila bi nekk moo tax ñuy bëgg toujours mbir mi na ko waajur njëkk a yëg mbaa mu teel ko yëg moo tax gis ne islam lu muy nan nañ ko defee nii rek am na conséquence muy am buñ ko defee wut noonu parce que tey bu fekkee ubbi nañ buntu boobu ngay def seen yéen ba àgg ci waajur waajur ñu mayewuñ nag kon waajur na ko nay njëkk a yëg moom wala boo balaa mbir mi dem fenn na yëg su ko defee nag luy am dooga am wallahu aalam
ñu lay ci nan lay def ndaw si nga xamante ni maanaam daa dem ba bëggatul ci mu benn benn waay dem ba bëggatu ko léegi waa ji bañ na doo ko du ko bàyyi foofu noonu nan lay def
ah xanaa mu xam ni moo jàppoon rek ndax xaabaabal xamaan saa boo demee ba nit ñi mën a too tourné daa fekk da ngaa xaabaabaloon maanaam jàpp na nit ki nga dem ba muy bañ naan duma la bàyyi wala yow nga mën a mënatuma koo bàyyi daa fekk jéggi ngeen frontière yi waaye bu kenn ku nekk yamoon fa nga war a yam nga respecté sa morom doo ko dépassé du yegg foofu foofu nag maa ngi dénk sama dénk mbokk yi bokk na ci li koy waral mooy ñàkk a maîtriser sa bëgg ak xaabaabal ci wax ak jéggi dayoo ci biir yi day waral miinante bu ëpp ba tax bàyyante dootul yomb te bàyyante kat ci mbir yi la bokk de te da ngay dem ba mu yàgg nga am lu leer te leerul woon te gis nga nag labar yàggal ko daa wóorul sax dafa wóorul maanaam ay risque da cee nekk nag fan benn doomu aadama boo miinul rek dina am yu la nëbbu ci moom koo miin rek affaire yi commencé feeñ benn nga ci ay risque la bokk ñaareel mooy lu mu gën a yàgg mën nga dem yàgg nga gis keneen koo bëgg ci diggante bi nag boobu moom moo gën a garaaw nag moom léegi su boobaa nag moom da ngaa dugg ci gudda nag su dee ko jik góor gi it ka daal di mën naa gis keneen ku mu gën a bëgg moo tax yàgg dafa wóoru joxe sa kàddu gën koo wóoral nag moom ndax tey boo joxanteeg sa moromu kor kor kàddu ngeen di pasante jëmale ila ajalin xayri musamman si diggante bi nga gis keneen koo gën a bëgg su boobaa di nga fecc kollëre mbaa nga wor mbaa nga forcé sa xol dugg sa xol kenn du ko far xol moom ku am fulla la moom boo ko forcé mu ni la déw ma nga forcé ko mu ni la déw ma nga xëccib loxoom def ko buy dem tuuti taxaw wallahu aalam
ñu léegi ci laaj yi ne est-ce que ci jigéen bi xañ na jënd maanaam muuraay ci biir këram nekkee ci kanamu jëkkëram ak waa waa famille bi ak aussi ñu sol yére yoo xamante ne yére yooyu
waaw bu fekkee mook jëkkëram kese la mën naa sol lu ko neex bu ko neexee sama bañ a sol yére bu dee moom jëkkëram kese la loolu danoon nag defe ne ci société yi appartement boo xam ne yaag sa borom kër rek ka fa nekk ak sa doom bu matul mu kàllaf wala yow sa borom kër kese kese tëju na kenn néewu ko ah te melul ni këri Ndakaar yi nga xam ni boo nekkee ci biir débéni tëju nga am na ko taxaw cay tànk di la séen wala mu nekk ci biir néegam tëju biir saalam nga xam ne am na sécurité ci góoru jàmbur du ba dugg foofa moom bu solul yére yoonu kenn néewu wallahu a'lam
أنت حبيبتي أنت زوجتي